suñu teewaayu tey Touba ñaari mbir la d'abord dañ fi ñëwoon euh, waxtaan ak kilifa diine yi fi nekk pour euh, démarrer lu ñu tuddee seemi ndongo daar parce que ni ngeen ko xamee programme couverture maladie universelle dafa yaatu dafa am pàcc boo xam ne dañ ko tuddee seemi élève mais ku wax élève également wax ndongo daara te ndongo daara ku koy wax wax dëgg yàlla moo noo ko ci génn te xalif général defoon vraiment acte bu am solo parce que dafa dégagé woon vingt millions ne vraiment nañ démarrer processus bi léegi nag bu mu ko dégagé woote nañ fi ndaje bu mag atelier national de réflexion ak kilifa diine nekk ci réew mi yëpp ñu waxtaan naka lañu mën a tërale initiative boobu yàlla def également ñu trouver ci consensus ci tëralin boobu ñu am comité technique bu koy suivre élaborer woon un projet d'arrêté interministériel parce que ñetti ministère ñoo ko sax ministère de l'éducation ministère de la santé ak ministère de la bonne gouvernance et petite enfance bi nga xam ne moo yore mbirum daara léegi nag bu loolu passé après nag directeur général nañu dem leen Touba ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci Euh, atelier boobu représenté woon si euh, Sëñ Muntaxa yal na fi yàgg noo ñooñu muy Sëñ Moustapha jatara bi nga xam ne mooy gérer bibliothèque euh, Touba moo fi ñëwoon ñu seet si ko woon remettre ko lettre bi nga xam ne directeur général wane na ci ne à partir du premier février enrôlement administratif ndongo daara mën nañ ko def. quarante mille daara ñoo nag Touba waaye liggéey boobu du jafe. parce que jot nañ am cartographie de tous les daara d'ailleurs boo gisee sax mbir mi yeexoon il fallait ñu def cartographie daare daara daara yooyu léegi également xam nañ ne au niveau de Touba am nañ fi treize mutuelles de santé liggéey bi nag dina tàmbale suba incha allah ñu xool répartition ndongo daara yooyu ak répartition également euh, daara yi ak répartition également mutuelle de santé pour que bu ñu par exemple daara bii Touba Ndiarème la nekk ñu collé ko mutuelle de santé bu Touba Ndiarème commencé enrôlement administratif boobu beneen bi ci topp mooy euh, chef du village bu Touba Ndiarème dafa woote woon lu am solo lu am solo boobu mooy conférence publique sur la les programmes sociaux du président de la République de manière globale ñun nag agence couverture maladie universelle képp kuy wax programme social président de la République defe naa couverture maladie universelle ngay jiital mu yebaloon ñu fi ñu ñëw waxtaan fi won population Touba ne président de la république lu ma def ci mbirum programme social amul depuis les indépendances président bu ko def man mii euh, sax mën naa wax ne peut-être président ci mbirum protection social lu mu fi def amul am gisuma fi président bu ko def lu koy firnde rek mooy tey gis nañ fi. boo xoolee enregistré résultat ñu ñu enregistré am na fi deux millions neuf cent personnes yoo xam ne dugg nañ ci mutuelle de santé te état mooy supporter moitié cotisation ci 2 millions yoo am nañ 1 million 348 mille yoo xam ne état cotisation bi yëpp moo koy supporté képp ku ci feebar également moo lay faj ñooñu nag bokk ci ñi nga ñu ñu tuddee ñu ci programme boobu ñu ñu tuddee programme national de bourse de sécurité familiale pour montrer un peu bi nga xam ne président de la République bu def na ko ci ñaari programme sociaux yooyu muy programme de bourse de sécurité familiale ak programme couverture maladie universelle parce que def na képp koo xam ne am nga bourse de sécurité familiale ñetti weer yu nekk ñu jox la juróomi junni béppare yow ak sa njaboot ñu dugal la ci mutuelle de santé état mooy gàddu cotisation bi li nga waroon fay également boo feebaree parce que système assurance maladie da ngay fay tuuti assurance gàddul la ko mais ñooñu leer ne ñooñu ab tuuti boobu sax duñ ko fay ñun état moo ko gàddu ñun wër nañ Afrique. wër nañ le monde entier à travers des conférences mais gisuñu président boo xam ne def na lu mel noonu Le Sénégal aujourd'hui est cité en exemple à travers la couverture maladie universelle mais également à travers la bourse de sécurité familiale weer bu nekk au moins dinañ recevoir une délégation qui vient d'un pays pour xool Sénégal naka lay naka la président de la République def ba taxawal ñaari programme yooyu ñu am lëkkaloo boobu. tey boo xoolee lépp ñuy dugg ci mutuelle de santé tollu na ci lu mot deux cent quarante mille ci deux cent quarante mille yooyu am nañ a peu près cent trente également ñu bokk ci bénéficiaire programme bourse de sécurité familiale di faju te duñu fay dara ba pare également ñu leen jox ñetti weer yu nekk juróomi junni loolu am solo la lu révolutionnaire la en matière de protection sociale ci remboursement également mën naa wax ne état vraiment góorgóorlu na te mu ngi jàppale bu baax agence couverture maladie universelle barke de moo Ndiaye rek lañ viré lu mot sept cent cinquante quatre millions ko mutuelle de santé yi parce que état mooy gaddu moitié bi ci mën a ñu mën nat sept mille francs yi moo koy gaddu ci ñu bokk ci programme de bourse de sécurité familiale fu mu ne nii vraiment au niveau des mutuelles de santé ñu ngi remboursé ay prestations nit yaa ngi dugg ci mutuelle de santé yi xaar mooy euh, fii dafa mel ne bourse familiale yi am na ci bénéfice à trois cent soixante dix personnes kon loolu quartier boo xam ne daanaka mën na man mën mën na 6500 personnes loolu bu duggee day mel ne ñi ngi séntu ci maanaam ñi yor vallée yooyu ñu def ko. Euh, couverture maladie universelle yi nga xam ne maanaam moom lañ taxawal tam mel ne ñun am nañ ci ay sëliir ñu ngi ci doon dox lool tam njëriñ la loo xamante bii ne euh, bëgg nañ ñu gën koo euh, moo moo am suivi comme par exemple li président Diouf wax léegi maanaam mu doon loo xam ne rapidement lañ ciy taxaw ngir ñu mën cee gis suñu bopp.